al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi rahmaani alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah eh, jërëjëf sëriñ xaadim ñu ngi lay sant bu baax ci groupe bi nga ubbi ngir ñu war cee waxtaane lu am solo muy lu jëm ci liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha bi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko tam àgg ci jàmm nu ànd kook moom kon ñu war cee waxtaan lépp loo xam ne aju na ci complexe bi comme niñ xamee liggéey bi nag euh, dafa am num tëdde woon moo taxit waxtaan wi noona rek lay mën a tëdde incha allah Euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmad Badawi nekk coordonnateur général bu daayiratu Rawdu Rayaxiin moom la sëñ bi jiital ci liggéey bi muy conception projet bi ak lépp loo xam ne aju na ci ni mu war a doxe ak lu koy doxal moom moo kon mooy ki jiite liggéey bi euh, kon moom incha allah dina dugg ubbi jotaay bi bu ko defee bu ubbee jotaay bi it dina gaaral léegi mbokk yi nga xam ne ñoo ci war a waxtaan bu ñu noppee it moo del siwaat moom it euh, yëkkati jotaay bi incha allah ngi lay nuyu bu baax di la sant ci xalaat bi ak initiative bi di sant nag bu baax suñu kilifa di sëriñ Ahmad Badawi ci ubbi gu am solo gi nga xam ne ubbi na ko mu doon nag wax dëgg yàlla jëwriñ joo xam ne taxawaayam eh, ñëpp seede nañ ko ci liggéey bi ba ko ko sëriñ bi joxe ba nëgë moom lépp moo ci taxawal boppam jiite ko jox na ko wax dëgg yàlla ak xam ci taxawaay bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk daanaka mën nañ ne seetlu nañ ne booleetu kook dara xëyam ak gontam ak bépp réunion buñ ciy def mooy ñëwal boppam jiite réunion ba teewe ko fépp fu ñuy dem mooy jiite délégation ba kon daal wax dëgg yàlla ñu moom it ñu ngi koy ñaanal ba yaakaar ji sëriñ bi am ba jiital ko ci liggéey boobu yàlla na ci yàlla def lu kawe njort kon moom it euh, du mën a ñàkk ñun ànd ak moom ci biir liggéey bi ñu seedeel ko loolu ñaanal ko moom it yàlla kàttanal ko ba li mu bëgg yéene ko ci liggéey bi suñu borom defal ko ko ci waa nun kon xam naa ne noonu ko sëriñ Ahmadu waxee rek bi ñu dégloo ndigalul sëriñ bi ak eh, orientation yi nga xam ne joxe na ko eh, lañ ca déggee ca lañu sukkandiku ba tabax li ñu tabax mooy dañoo gis ne sëriñ bi kat ñaari mbir feeñ na ci biir wax ji mooy man nga ne gën a dundal xam-xam ak yar ci dëkk bii di dëkku tuuba ndax nam ko waxe Touba war a àgg ci dëkk yu mag yi ñuy tudd ci lislaam Basra Kuufa Madina Munawwara ak ñu mel ni moom dem ba junj lu soree sori na buñ fa àggee kon nga xam ne kon dafa am vision boo xam ne moom la sëriñ bi am mooy dundal yaatal yàkkali gën a dooleel mbirum xam-xam euh, vision boobu nag nga xam ne mooy vision bi nga xam ne moom moo moo moo feeñ ci bëgg-bëggu sëriñ bi ak ay junjam ak i waxam kon ñu gis ne ab système dëgg-dëgg njàng la njàng la moo xam ne mu mat sëkk la mu yaatu lay doon nim ko waxee tàmbulee ci suuf ba ca njobbaxtan la kon mooy bàyyiwut benn cycle moo tax euh, wàll googu mooy genn wàll gu njëkk gi muy daal ab système bu complet boo xam ne dafa tàmbulee ci suuf ba ca kaw mooy njàngum alquran njàngum majalis mii fi amoon nga xam ne mooy cosaan ak sax Euh, école yi nga xam ne mooy fay am ay cycle élémentaire moyen ak secondaire ba ci enseignement supérieur kon mu mel ne vision boobu gis-gis boobu nga xam ne gis-gis bu yaatu la ci wàllu développer lépp luy jàng ak jàngale ak yare ci dëkk bi ni ko sëriñ bi bëggee woon ci sëriñ Ahmad leeral ko loolu moo waral kon mu ñu gis ne ab système la waaye nag ci ginnaaw loolu mu am nag ab daara daara joo xam ne moom mën nga ne benn établissement la ci biir système bi daara jooju nag mooy complexe bi nga xam ne boo seetloo complexe bi moom ci tàmbali bi ñett fay nekkagun muy njàngoom alxuraan mi ak majalis mi ak njàng mu kawe muy enseignement supérieur waaye boo seetloo lii di école élémentaire ak moyen secondaire nekkuñ ci biir daara ji waaye nag boo xoolee waxiinu sëñ bi da ngay xam ne ci biir ab liggéeyam la ko boole moo tax bi ñuy tëral commission yi ñu wut juróomi commission commission bi nga xam ne moo jëm ci njàngalem alquran ci sëriñ Moustapha Diop yoroon ko macha allahu jiite ko jiitiin wu rafet ànd ceeg mbooleem ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu googu ci dëkk bi ñu liggéey ci liggéey bu sell sell boo xam ne moom ci boppam dina ñëw incha allahu leeral ko ginnaaw commission boobu de ñaareelu commision bi di commission bi doon jëm ci wàllu majalis nga xam ne mooy njàng mi nga xam ne mooy njàngum cosaan nga xam ne ci la ñëpp jaar mu doon mu ñu war a sàmm dundal ko ni ko réew yëpp amee dañoo téye seen njàngum cosaan fexe ba boole ko nit ki man caa jaar waaye nag fépp fu mu war a àgg mu man faa àgg dara du ko gàllankoor boo demee Maroc fekk ko fa boo demee Iran fekk ko fa boo demee dëkk yu baree bari da nga fekk ñoom ñu garder seen jàngum sos cosaan moomu di ko dundal boo demee Mauritanie gii mahazara yaa nga fa bu dee boo demee Iran fekk fa hawza ak yeneen feneen foo dem Pakistan yëpp ñu wut commission boo xam ne mooy yittewoo loolu Sëriñ Bàkke Abdourahman moo it jiite woon commission boobu incha allah kon li ci mat a leeral dana ko leeral mu amaat beneen commission boo xam nag mooy euh, école yi nga xam ne mooy école formelle école formelle mooy li tàmbalee élémentaire moyen secondaire école yooyu ku ne xam na ne am na ci dëkk bi yuy jàngale diine muy école arabo islamique jàngale arab am na fi ay franco arabe euh, yooyu yëpp programme yooyu liggéey nañ ko wut commission boo xam ne liggéey na ci liggéey boo xam ne nu ñuy fexe ba li nga xam ne dëkk bi woon na ko ku dëkk ci dëkk bi aje woon a ko lépp loo xam ne dafa war a dañ koo mën a sukkandiku ci njàngalim sëriñ bi loolu lépp ñu def ko ba xoolaat programme yooyu loola sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud moo ko jiite woon commission boobu ñoom it ànd ceeg ay inspecteur ak i jàngalekat ak i boroom xam-xam yoo xam ne yooyu yëpp moom it incha allah la ca mat a leeral dina ko leeral lañ ca jot a waaye nag ci biir école formelle boobu am na école spéciale boo xam ne moom école formel la waaye dañ ko jagleen ñi mokkal alquran nga xam ne yooyu programme bi damuy tëddee day gën a gàtt maanaam bu dee école bii nga xam ne mooy traditionnel bi wala classique bi ndax euh, ñi mokkal alquran ku ne xam ne seen xel ak seen maanaam tolluwaay may na leen liñ waroon a jàng ci juróom-benn at ñoom ñu fexe ba programme ko noo xam ne buñ jàngee ñetti at àgg ca loolu yëpp Serigne Fallou Ndiaye Guédé moom moo jiite woon commission boobu moom it incha allah su fekkee ne dugg si na la ca leeral dina ko leeral mu am na commission enseignement supérieur boo xam ne moom dafa am ay bànqaas ci biir ndax enseignement supérieur bi da cee am UFR euh, muy kulliya muy faculté boo xam ne moo jëm ci njàngalem arab ak lislaam waaw boobu sëriñ Abdul Ahad Lo moom moo doon koor coordonné liggéey ba incha allah moom it dina dugg leeral lañ ci war a leeral mu amaat yeneen faculté yoo xam ne ay UFR lañ leen di tuddee mhm. euh, mu jëm ci wàllu métier yi ak technologie ak boo xam dafa jëm ci science agronomie kooku professeur Mor incha allahu dina ñëw moom it leeral ko xam naa ku ci ñëw ci ñoom dana leeral li mu war a leeral présenté boppam présenté commission bi mu doon liggéey ak lañ liggéey kon bu ko yàlla de bu ko yàlla dogalee incha allah ñun bu fekkee ne jar nañu am am na ay leeral yu ñu war a leeralaat del siwaat su fekkee ne am na ay laaj yoo xam ne war nañ ci am nañ ci tontu it ñu del siwaat incha allahu taala kon jërëjëf